8h51 minutes RFM matin ñu dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar. dëgg man yow ni ngay waxee moo ma neex. waaw. li may li may préciser. non waxi li rek. macha allah. loo bëgg. dara wala nuyu naa la Dior. nuyu naa la Dior ba yaa ngi. fay naa la fay naa la bilay fay naa la. maa ngi sant ak muñ. kon baax na kon baax na Dior. nuyu naa auditeurs yi sant leen gërëm leen ziar leen. fay nañ la ñoom itam. Euh, di jégalu ci Ibrahima jiite. waaw di jégalu bu baax. Ah, dafa fekkoon góor gi woolu Touba. jéng mhm. kom. Mhm. moo tax mënuma. loola farata la woon. Mhm. ci réunion ba. yow moom fa nga nekkoon musu ko ci rajo en tout cas soxla kii la daal la nu tëddi ngant daal la. Euh, moo tax ñu jéggalu. jéggalu bu baax. moo xam nga moom woon réunion man maa koy invité ngoon naan kii ak yendu laa koy invité ma. moom ngay invité yendu waaw moom moom kese. waa génération bi ci média dégg nañ la da cay bokk te daa mën a lekk. kooku moom jarut invité kooku foo ko invité mu jeexal na nga def. John waaw. xam nga déggoon nañ benn xale boo xamante ni dafa doon def tey BFM. waaw waaw waaw waaw trente mille tey ko def. tey ko def waaw yow damay sant sénégalais. Hmm. waaw am na ko ko fay. alhamdulilah boo xam ne bëggul ñu wax turam. ñoom sama ñu bëgg ñu wax seen tur waaye dañ moom xam na boppam ñu ngi koy jaajëfal di ko gërëm bu ba baax gërëm laa xam ne Sénégal la ne xam nga ki jël trente mille am jox ko pour mu dem fay mm. bàyyi na soxlaam dem fajal ko waaw la rek trente mille bari na bëriwul mais yéene moo am solo dëgg la ñu naa gone gi da nga delloo samay trente <laughs> ma delloo ma delloo Dior waaw lu musul am ci xalaas ah. saalifa photo jinne andil ma déedéet man fee jinne gi maa nga bëgg a wax ba léegi photo baa ngi nii joor xam nga man aw ma Facebook waaye boo mën Facebook da nga ko ci dugal xoolal Salif de photo jinne indil ma gis nga ko noonu. waa jooju ñoom toog ci buntu place bi. waaw gisoo li wàcc ci suuf noonu. gis naa kay kay kay gis naa ko. mu ngi noonu ak ak karaw gu gudd gi sax. waa ji daal nee na da doon photo jël pause pare tourné gis ko ci. d'accord. ah. déet lii dañ ko faaw ñu publier ko. dañ koy publier te lii mënul nekk montage. non dañ koy publier. fu koy publier. Hmm? waaw ñu déglu waa ji ko photo pare. ñu déglu ko photo jinne ni muy mel ak na jinne ji mel après ñu xool ban yan pexe la ñuy teg pour publier ko. man la Modou. sant Cissé. naka quartier Oris. Thiaroye Géej. bon la jour dimanche ba le passé. waaw moom lañ ko gis. ay ay deux heures. jàpp trois heures heure boobu. waaw ci lañ ko gis. waaw man maa génn bi ma génnee taxaw ci buntu gaale bi. daal di daal di téye appareil sama appareil. ba maa dem fekk dama doon ngont bi may dem. daa taxaw téye sama appareil mii daal di foto photo nii quoi bi ma tourné appareil bi pour photo beneen waa ji ma rek mu manifesté wu ci photo bi taxaw ma ne ko karaj mu photo ko daat koy jàpp no su ma siggee du ma ko gis su ma tegee appareil bi dama koy gis daal koy mu daan manifesté wu ci appaare bi ma fa toog sentir ma dara tiituma parce que ma gisee ci appaare bi rek laa xam ne la non di fa am sax mais boo xoolee melokaan bi rek xam ne jinne la parce que lu dul nit boo gisee di nga ko xam ne sax waaw jigéen la moom lay nuru waaw moom la kanamam moom la ma jox non non dara dara sama Santiru sentiruma dara bu ma gisee rek sama karaw bopp yi ya, instant eh, boobu sama karaw bopp yi ya, taxaw na mais après nag kiiwaatuma dara parce que ragaluma ah jàng naa alxuraan mom waaw jàng naa alxuraan yàgg naa ci daara xëy na gi xëy na yaroon naa foo xamante ni xëy na yooyu kii kuwuma quoi tiitalu ma oui waaw sama waa ji laa ci waxtaanal rek mais am na ñu ko bëri na ñu ko moom. waaw ñu ko benn gaan ma waroon image bi xam nga boo wane waxee kenn kenn di kee wax ko kële kële wax ko kële daanaka ñëpp yëg nañu. waaw ah, jar na aaja ah, tere ko xale yi parce que bu ne ay affaire yu jëndee ci loolu la gën a bon sax ci xale. waaw aaj na aaj na tamit def ay ñaan waaw ñu xool heure bi ñuy dox rek ah digg njoloo timis ñu moo di heure yooyu li ma jaaxal mooy daa def ay rasta wala mèche la wala karaw gi gudd ni ah ci li ma gis de karaw laa gis xaw ma karaw nga gis karaw laa gis ko la waajib te dondel nag moom ma nga xool fële dama koy jox kii waa internet bi mon ami ton frère Seneweb mm. ah IGFM laa koy ah si man moo nami toog frère. wala eh? ah, iya. eh? ma jox ko Sénégal ma jox ko waa IGFM ak Sénégal daal ku gën fay prix ma jox la ko Ba ngi nii. waaye sax. jox ko internet bi rek. mu jeex jox ko internet bi rek. John waaw. bu weesoo waa ji photo. ba photo jinne. ah noonu lañ ko mën a tuddee dama lay histoire bu xaw man dëkk ba mu xewee rek moo ma jaaxal ndax ña nga jëw tiis mooy mm. paal da seen xalifa bi dafa ngi wàcc liggéey uh-huh. keroog àjjuma uh-huh. mais xalaas bii ma lay waaj a jox fa la xewe waaw ñaar ñi daal dañuy wujje uh-huh. seen jëkkër nekku fa ah xam nga fuñ mujjee kenn ki fa mu teg diwlin nga di togg di xaar ñoom seen rosi ay xam nga rosi rosi non non lui je connais pas ça veut dire quoi rosi non je connais pas jël diwlin def ci cin ba mu kii ba mu ki bax laajal ko doon ceeb bu weex eh, rusine te tuba nag ah, eh. <laughs> <laughs> ah d'accord <laughs> oui ma waxal mi jo soxar ngo bu charon diallo jor hmm, ñu déglu leen histoire bi jaajaru may def léegi kan mo kan mo kan moy wax deuxième bi manam ki kepp ndox bi wala ki ñu kepp dawlin wa ki kepp dawlin bi wala ki ñu kepp dawlin nga bëgg xam ko ci wax ki kepp ah. wala ki ñu kepp ah. ki keppate wala ki ñu kepp jox ma ans dama toog di di togg reer mais dama wan buntu kër gi ginnaaw ndakate bi ma toogee noonu togg sama wujj bi doxe na ma ginnaaw mais mu ngi doon root di root ci fleur yi pour man day def liggéeyam bàyyi ma ko xel après ma ndakate li mu def yooyu yëpp tëj na buntu kër gi man maa fa nekk ak sama doom bu ndaw ak moom ñaari doomam mais moom ñaari doom yi ñoo ngi nelaw ñu tëral leen ci fauteuil bi noonu ci perron bi léegi ma jékki ba si àgg rek am lu mu songe ma ginnaaw léegi bu ma songee ginnaaw mu dóor ma ma këppu léegi bu ma këppoo dama doon sóoraale sama kanam geeg dawlin bi ci la jël pool bi ma doon lakkee bi mu sotti ma ko ma ko sottee après si këpp noonu su mu xam naa dawlin la ak suuf ak suuf bi noonu def ko sama bët yi ak sama bakkan bi ak fat ma tëdd léegi ma tëddee jéem naa fayu sax mais lakk-lakk bi moo taxoon. léegi après bu ma tëddee noonu moom dakate daw na ba génn te ma xoolee gisuma ko mu dem mais si laa doon miir ma delluwaat fi ma doon kiiwe jéem xool yi ma doon toggee yooyu yëpp mu tuur ko après moom benn rakkam bu mu bokkal yaay ñëw foofu te jël si ñampeem ni moom day sangu si la ma fekk ma tëdd mu jéem ma yëkkati ak xale bu mu àndaloon pour yóbbu ma sama kër goro bi mais dama daanuwaat ci yoon bi après moom si la daw woote ji daal di lu la def nii man ni ko diw moo ma def nii après que lañ ma jël yóbbu ma si dispensaire bi ne foofu heure reer rek reer laa doon xam nga bi ma ñettee si la kii noonu ma këpp noonu fekk sama doom bi mi ngi sama wet mu ba max ne bañ diwlin bi laal ko man moom jëkkee maa ngi moom dara mais bu yàgg xam naan daal neexuma ka ndax njëkkoon nañ jote mais dañ defoon arrangement noonu rek mais man boobu ba tey du ma ko tudd du ma ko taal man naak bu ma toggulee damay tëj sama buntu dem moo ma ne ñëw lekk lekk mënuñee ñëw lekk toog jour boobu laa waxul ma wax gis naa ko daal mooy li jaabante roose ba yàgg rek la riir ma xam nga waañ beeg douche bi dañu xaw dend ak bi fu muy root lay jaaree après moom dafa génn dem bàyyi fa ñaari doomam daal di dem rakk ji dafa ñëwoon a di jël si ñampeem tombe noonu mu après ci la ma laaj ma ne bi ñuy bi may jotee ak man buntu kër gi da ko tëj mais avant loolu sama jëkkër bi avant muy dem mi ngi ko bàyyi si buntu kër gi mu toog mais après si tëj te ndax man li ma toog di lakk yëpp mu ngi toog si saison ci buntu kër gi. su doon ñaari doon après noonu si la ne ma bu ma la rayee ba nga dee di nga xam. ma ñëwee ba tey jéem naa laa côté bu ne mais ma xool man mënuma supporter après si laaj xam ni daal kii bu bàyyi ko daw naa ko te bu ne nag bu ma fekk benn yoon su ma biir néeg xeex ak man mais dañ ko def arrangé déedéet dafa ñu songee woo noonu ci la ko ci rob ma solo mu xotteeku mais ñu def arrangement rek bàyyi ma léegi bi affaire bi amee léegi moom dem na seeti seen kër fekk ko ba mu am kër bu mu ko fekk ci la ko may baatam kër dama lay mu daal di ko bi ko mu ko mayee baatam noonu après si la ni moom histoire bi fekkewu ko yoonam new si ñu ñu nañ dem yoon luñ koy lu ñu yoon yooyu ñu dem Dior waaw suba ci xalaas dinaa la andil benn maire boo xam ne feebar bi ko dal médecin xamu ko li téléphone def di vibré non lay def mom ci bopam non lay def di vibré da du ko def taxaw de continuer d'accord jor suba ci xalaat dina la andil mhm. ben eh, ka bo xamne cheikh anta momu ko jox cheikh anta ci xam nga lan la ah deet xamaguma way suba jor ki neena na hmm. defa ko wax touba lay la tuddu touba lay ne dafa réeral benn sac boo xam ne carte grise moo ca nekk ci turu Mandiagne Diagne mhm. am na livret assurance mhm. licence mhm. droit ak même permis ci turu Touba léegi tey jumba leen ko jox ko delloo leen ko ay kay kayitam bu ngeen ko gisee jor kay daa am solo de c'est que utum kay mo njëkk nit barki yalla kere mère Medina dañ ma sabu ma bàyyi leen ko oto ba dañ may fay lo kan mo gëna sét auto ba d'accord ma bàyyi leen ko kat du loo def loo def ba ñu sabala. kër du daj jikko laa dugg. ndeke fa ma gaare baaxul. ah yaa tooñ. moo taxit. nga jéggalu rek. damaa gis ñu rek ma dugg. ma dugg ndeke fa ma gaare baaxul waaye ñëw na ci képp. d'accord ma ne ko li nag mu jox ma reçu ma fay ma xool facture bi xool oto bi xam ne facture boo gën a seer oto ba. ma bàyyil ko fa oto bi ko fa oto bi. waaw baax na yor ba suba ak <laughs> yow. ba suba incha allah di leen jaajëfal bu baax rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias dig daje suba à partir de 6